bombardier B52 bu mbuur dellu na waat ca Pologne gannaaw defet bi mu amoon ah, diggante mook polonais boobu te mu kawate ko woon kon bi yoon bombax bombardier la mu bëgg mooy dem ca Pologne effacé bile défaite kon mu nekkoon 23 octobre 2021 bombardier ka muy jàkkaar loola bi yoon mooy beneen xale boo xamante ni ma nga dëkk foofu ca Pologne di def lii di MMA gannaaw bi mu amee ñaari ndam diggante moom ak Rocky Balboa ak Daniel Portmore moom mi le Bombardier amoon na benn defet kon tey jile li mu bëgg mooy euh, gagné ki nga xamante ni mooy beneen adversaire am ba mu war a jàkkaar lool euh, foofu euh, ci réew Pologne kon combat bi ci dimanche bi lañ koy amal bisub tabaski fii ci ndakaaru ñu koy ñaanal mu am ci ndam buñ ci jógee moom jee gannaaw bi nga xam nekk nañ ci combat MMA boobu ñu ngi coow combat bi diggante moom ak Ama Baldé kon fi mu nekk nii ñuy wax ak yéen Euh, waxtaan bi sori na lool lool lool waa kaw Ama Balde sax semaine bii passé waroon nañ jot seen i avance waaye tamit euh, ñii di waa kër Bombardier nee nañ woon waxtaan nañu ba euh, jiboo li des rek mooy ñu jot seen avance boobule Bombardier nekk ca Pologne di def beneen combat MMA mu war ci génn ak ndam pour mën a relancer waat carrière am ci komba MMA bu ñu ci noppee li nga xam ne mooy coow buy wulee ñaay foofu ca géejawaay diggante Lac de Guiers ak ki nga xam moom mooy Balla Gaye 2 parce que fan yi ñu génn Lac de génnoon na ci presse bi moom la mu doon sàkku rek ci Balla gay mooy mu ñëw ñu préparé ndoo combat diggante moom a Gris gannaaw lu ni mel moom Balla Gaye gis ngeen ko ci vidéo moom itam wax na nee na staffam ak li nga xam moom mooy école de lutte doy nañu ko amul si beneen mbër bu muy dem pour di préparer combat am loolu indi coow lu rëy ñii jox nañ dëgg Lac de Guiers jox nañ dëgg Balla Gaye 2 ne warul woon waxee noonu moo tax ba rek coow am na ci seen biir muy 100 pour cent géejawaay tasaaroo na ku ne jaar fee moo tax ba liiru jaan monument waaye nekk seen mag woote na réunion d'urgence ngir daal di waxtaan ak ñoom ñu booloowaat nekk benn monte sax liiru jaan guy gi ak Lac de Guiers numéro 2 jot nañoo waxtaan ci lu ni mel.